diwaanu Tambacounda donte am nañ yaakaar ne war nañ leen a mën a gis ñi nga xam ne ñoo di askan wa dëkk euh, ci gox bi ñu wooyee jënu jala ñoom ñu ngi def seen kéem kattan euh, bu ko defee xool tamit naka la ñuy def ak mbir moomu dinañ ñëw ak yéen tamit ci li nga xam ne dafa soxol wàllu toxum cigarette ñu gis ne daal at mu jot dina am ñu bëri euh, ñu muy faat seen bakkan ci àdduna bi buñ ko xaymaa mi ngi toll ci juróom benni million fii ci biir ndakaaru kuréel bi xeex lépp lu jëm ci fànn boobu fi mu nekk ni daal gis nañ ne am na téeméer ak ñeent ñoo xam ne war nañoo am euh, xeetu cancer boo xam ne cigarette moom moo koy indi ba tax na ñoom ñu bëgg ci lëkkaloo ak kilifa diine yi ngir gën a mun a ñaax askan wi askan wi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom ci Parcelles Assainies ak Cambérène fi mu nekk nii euh, mun nañoo nelaw ba yandoor te ndox mu bon mi nga xam ne moo doon balee euh, ci émissaire ba nekk ci Cambérène fi mu nekk nii taxaw na loolu démb ba léegi askan wi di ko rafet lu waaye nag ñu ngi bëgg ñu daal di leen raxasal seen gox boobu bam set wicc dinañ ci déglu kii di Yves Tendeng fële nga xam ne moo di ca Thiès xeex mi ngi jëm ci wàllu xeetu mbuus yi nga xam ne gis nañ ne daanaka ci mbalit mi nekk na lu fa xaw a doy waar ñu lëkkaloo ci ak benn ONG bu nekk ca Italie dina ñëw ak yéen tamit ci match bu am solo bi nga xam ne moom la Sénégal di football ci kanam tuuti bu juróom-benn waxtu jotee ci stade Léopold Sédar Senghor euh, digganteem ak Libéria loolu mu bokk ci wàllu éliminatoire euh, coupe du monde 2014 dinañ ci jokkoo ak El Hadj Malick Ndiaye ki nga xam ne ay jamono bokkoon na ci équipe nationale bi mu di Roger Mendy moom moo fas yéene nekk ganu kër gi bitim réew euh, xibaar yi liñ ci gën a jàpp ñu ngi jëm ci daan bi nga xam ne teg nañ ko ci nekkoon ay jamono président bu Égypte mu di Hosni Moubarak ñu fas yéene ko tëj giiru dundam loolu mooy bi nga xam ne tribunal bi génne na ko nag tey Marcel Colli moom moo nekk ci wàllu xarale gi. Diomaye Thiaré. mbokk yi ñu nuyuwaat leen euh, dem ba diwaanu euh, Tambacounda rawatina euh, gox bi nga xam ne moom la ñuy wooyee jënu jula mu nekk kon ci booru parc ko koba bi nga xam ne ay bës ngi nii wala boog dem ba léegi sax lu tollook juróomi xale réer nañ mër foofu kenn gisu leen ba tax na askan wi nekk ca jënu jala ñoom ñu ngi def seen kéem kattan taxawal ay group waaye tamit ànd ak ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu xam-xam bu ñuul bu ko defee ñu xool naka la ñuy def daal teg leen ay gët dañ ciy déglu kii di Madi Fadia nekk koo xam ne mu ngi dëkk ci gox boobu ñuy wooyee jënu jala gannaaw bu mu jokkoo ak Boubacar Tamba. Madi Fadia. fi mu nekk nii yéen a ngi ci biir àll bi. waaw. ndax am ngeen yaakaar ni mun ngeen gis xale yi. bon oh, yaakaar ah lu tax dafa am ay seetlukat yu leen wax ni xale yaa ngi ci booru benn benn faro. waaw benn faro ci benn. faral lépp benn faral la ñu nekk ko vraiment foofu la ñu kii on a distribué par des groupes quoi. donc ay groupe ngeen def pour dem seeti xale yi. waay. est-ce que fu mu nekk nii avion bi ñëw na ak hélicoptère bi. waaw démb mu ngi woon fii mais ba tey ñëwul de. mais population yi yëpp génn nañu pour dem seeti xale yi. waaw. am ngeen yaakaar. waaw ah, am nañu yaakaar ah. waaw jërëjëf Madi Fadia. ok merci. kooku di Madi Fadia gannaaw bi mu jokk ak Boubacar Tamba ñu xam leen ne tamit. jëru ju njëkk lépp lu jëm ci fànn boobu mu di euh, Ali Aydar démb ba léegi mi ngi foofu ca gox boobu li moom mu soxal wàllu euh, feebaru euh, cancer boo xam ne ci wàllu maanaam ay xëtër lay nekk li ko waral nag mooy toxum cigarette xam ngeen ne li muy faat bakkan ci doomi aadama at mu jot ci àdduna bi bu ñu ko xalmaa mi ngi toll ci juróom benn million fii nag ci biir réew mi am na kuréel boo xam ne dafa taxaw temm ngir xeex lépp mu jëm ci xeetu euh, cigarette ak feebar yi muy joxe fi mu nekk nii am na téeméer ak ñeent ñoo xam ne daal yaakaar nañ ne dañoo am cancer mu jëm ci fànn boobu Ndeye Khady jóob waaw euh, Pape Diomaye Faye rek kon dañuy wax ne bis bi le Sénégal tànn ngir euh, màggal li ñuy def tuddee journée mondiale sans tabac maanaam bis boo xamante ne kenn du ci toog cigarette xeex boobu nag dafay law ndaxte door na bu yàgg. puisque santé mi ngi fi woon euh, dem na sànq mais am na ay engagement yoo xamante ne def na ko jël li ñu war a def moom mooy taxé produit tabac yi euh, jël koppar yooyu la dugal ko ci li ñuy tuddee couverture universelle mooy objectif boo xamante ne euh, kii di Eva Marie Coll jot na ko wax bi mu nekkee ci biir gi nee na itam faaw ñu tànn diggante santé wala tabac maanaam wér gu yaram la ñu wala cigarette ci la ñuy topp Euh, tànn tam diggante dund wala dee nee na tam nañu arrêté li nga xamante ne moom mooy publicité bi loolu yëpp kon di ay engagement ak i proposition yoo xamante ne mi ngi jël ko tey ji di gis bi nga xamante ne Sénégal mi ngi ciy màggal ñaar fukkeelu édition ak juróom benn bi ñuy xëyee comme cigarette euh, thème bi nag ren mi ngi jëm ci ingérence de l' industrie du tabac maanaam taxawaa industrie fii ci Sénégal ndaxte xam nañ ne ngi gën di bare di fi ubbi moo xam ay wala euh, ay kiosque yoo xamante ne tam dañ ko gën dugal ci biir gox yeeg goxaat yi wax nga ko sànq résultat enquête 2007 ministère santé def wane na ni fi mu ne nii ci biir euh, daara yi euh, téeméeri xale yi góor yoo jël ñaar fukk ak ñaari dañuy toog ci wéy si jigéen ñi téeméer boo jël fukk yi dañuy toog ci diggante fukki at ak ñett jàpp fukki at ak juróom ci biir bérébu fajukaay rawatina ci hôpital Fann nee nañu nag euh, am na enquête bu ñu jotoon def lu toll ci téeméer ak ñeenti nit yoo xamante ne dañu jàpp ne jàngoro cancer bu ñu tuddee bronchopulmonaire dafa leen dal dañu jàpp li nga xamante ne moom mooy tuxum cigarette boo ko indi kon ay cas suspect maanaam des nañu daal di kay leexal mais seen xel tey na ci juróom benn million itam at mu ne dinañu faatu ci tuxum cigarette six cent mille gis nañ ne ñoom toxuñu tuxaan nañu wante dañuy dend ak ñi nga xamante ne ñoom ñuy tox kon Pape Diomaye Diakhar gis ni ne études yi lépp li mu wane daal mooy ne cigarette dafay rey ba pare dafay tax sa kafaga dootul gis ndax koppar yi nga siy dugal te du am benn njariñ ci sa yaram liggéey bi kon daal dinay taxaw ne nañu adopté loi bi ci assemblée nationale projet bi nag fi mu ne nii mi ngi ci ministre euh, santé ci tablam moom mi xamante ne moom moo ko présidé cérémonie bi ànd ak ministre euh, jeunesse bi Aly Poté Ndiaye Ligue sénégalaise bi nag gis nañ ni mi ngi faral lool di liggéey ak l'armée bi àndoon nañ fi ñëw ak seen délégation église bi dañuy liggéey ak ñoom ak cardinal bi xalif généraux itam dañuy liggéey ak ñoom ba tax na tuba ñoom yónnee woon nañu fi délégation bu leen fi représenté ndaxte Touba ak Cambérène Pape Diomaye xam nga ni tuxum cigarette dañu ko fay tere ñaari exemple yoo xamante ne Ligue sénégalaise bi ak tuxum cigarette dina liggéey ak ñoom jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy dine ak lu ñu suñu dina may moo xam ci juri ci wala quartier ni euh, ngir fexe daal ba toxum cigarette ku ko mën a bàyyi nga bàyyi ko ndaxte ñu ngi koy tuddee tueur froid maanaam euh, koo xamante ne dalay rey ndànk-ndànk euh, te kenn du ci xam dara kon cérémonie bi daal dinay jeex mais journée bi dafay continuer ak yeneen activité yoo xamante ne dinañ ko amal fii ci ligue bi ci Mamel fi leen Ndeye Khady Diop doon àddoo ak yéen ci Sud FM. Ndeye waaw euh, am nga jaajëf. <laughs> jërëjëf. ndey Ndeye Khady kon mbokk yi yéen a ko déggandoo euh, loolu di cigarette euh, muy mbir mu doy waar li ci gën a jaaxal nit ñi nag moo di ne dañ koy jaay gars yi waaye ci paquet bi dañ koy wax ne daal liñ leen di jaay day faat seen bakkan te yi dañ koo gën a bëgg. ñu ñëw ak euh, ci benn mbir moo xam ne soxaloon na askan yi nekk ci Parcelles Assainies ak Cambérène fii ci Ndakaaru muy ndox mu bon mi nga xam ne moo doon ball euh, ca émissaire ba nekk ca gox boobu askan wi fi mu nekk nii euh, mun nañoo nelaw ba jàndoor ndaxte kat ndox ma démb ba léegi taxaw na li ci gën a neex tamit moo di ne fi mu nekk nii askan wi mun nañ dem dikk te duñ am benn jafe-jafe waaye nag bugg nañ nguur gi gannaaw xet gu bon gi nga xam ne moo leen doon sonal ak ndox mu bon mi ñu fexe ba désinfecté leen seen gox boobu Yves Tendeng doxatu na fa tey ji suba ñu déglu ko ndoxu foos yi daan walangaan fële ca Parcelles Assainies dem ba Cambérène saafara nañ ko ci arjuma bi tali yëpp a wow ba tax na oto yaa ngi daw ni mu waree nit ñi amatuñu benn jafe-jafe ngir dem faji seeni soxla ñu bari ci ñoom ñoo ngi rafetu lu ni mel ginnaaw ñetti weer jafe-jafe ñu dund ci ndoxu foos yi. soulagement la ñu am ndax euh, vraiment fii embouteillage bi métti woon na léegi day moom danaa yàlla rek comme am nañu lii foog ñu sant yàlla parce que lii bi dafa ba débordé ci ñun suñu liggéey dafa yàqu. démb ci àjjuma ji te di taxaw te dellu si te mu wër péng mooy garage bi moom ak clients yi ñàkk ñàkk clients yi demoon na ba ci soixante am nañ ci yaakaar na war nañ ko gannaaw. jamono ji kenn waxatul dara ci wàllu ndox moomu waaye li ñuy coow moo di rek yàqu-yàqute yi ñu nemmeeku ci tali bi ak pënd bu ñu fay nooy. askan bi di ñaax nguur gi mu dimbale leen ci wàllu yi poussière bi fi nekk moom nooyi ko moom beneen affaire la moom des na ba léegi des na ba léegi des na parce que ñu defaree tali bi moom désinfecté affaire yi moom xëy na dina mooy suñu problème tali bi garaawul mais que poussière bii ñuy noyyi baaxul quoi. fii arrêté ñun moom ba léegi coono lañ fiy daj moom coono yu bëree bëri bëri nga pax bi xanaa gisoo tali oto bi yëpp ay pax la ñu toll ba juboo jafe-jafe yu mel ni man ne ba la ñu ci tàbbiwaat nañ ci waxtaan ndax jëf-jëf joo xam ne ñëpp ci maase loru ah loolu nag ku xam ne ni ci dëkk nga dëkk te bëgg dëkk ba war nañ ko moytu xañ na njuumte ak foot du ñàkk fot poli gu xat la waaye fot fotaat du boli gu xat bëgg lekk la. am na ay opération set setal yi ñu fa nar a amal ci week-end bii askan bi di ñu xamal ne sax njëriñ gi ñu denk wàllu environnement war na fa dem. Yves Tendin ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nekk ci boppu bopp yi bu Thiès li leen sonal huit lakkal leen mi ngi jëm ci wàllu maanaam déchets plastiques yi mu di mbuus yi ak ñoom seen nga xam ne daal ñoom dañoo bugg fi mu nekk nii nguur gi jël benn loi boo xam ne dafay tere lépp lu jëm ci ñi koy defar waaye tamit ñi koy jële bitim réew di ko indi fii te gis nañ ne xeetu mbalit moomu sonal na huit askano fa nekk ba tax na maire dëkk ba wala boog ki ñu toftal ci moom mu di premier adjoint lëkkaloo ak xale yi nekk ci quartier bi ñuy wooyee Mbour ngir taxawal bu baax xeex bi ñuy jëmale ci fànn boobu Babacar Ndaw jafe-jafe yi mbalit yi di indil askan bu Thiès tax na ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu dénk maire bi jàpp ne bokk na si wàllu plastique yi ba ñu ñaan groupe Sénégal tey jii mu dakkal ñi nga xam ne dañuy jéggaani ay bagage yoo xam ne dafay am ay plastique ne ñoom daal bu ñu sukkandikoo si ba Diattara loolu yokk na tey jii li gën a gàllankoor li nga xam ne moom mooy wàllu seetal ak set seetal si biir commune yi Sénégal doit interdire la fabrication de déchets de plastique au Sénégal et même l'importation par les sociétés étrangères loolu tant que defuñu ko problème mu déchets plastiques du régler ba tax na loolu parce que aujourd'hui en Europe soo gisee les gens imposent l'utilisation de sachets biodégradables mooy li nga xam ni c'est un peu mooy sachet bois bi mooy kayit et c'est très possible tant que defuñu loolu donc problème moom du masa change jafe-jafe mbalit yooyu ak mbuus yi si laxasu moo tax tey yi benn mbootaay bi bokk si benn quartier Thiès di Mbour 3 ay ndaw yu jóg ginnaaw bi seen association bi juddoo si atum 2007 fas yéene nag dugal seen loxo si wàllub setal seen gox ba waaye surtout lépp luy mbalit boo xam ne dafa ànd ak mbuus ñu jëm ko xool wut si ay pexe Mamadou Lamine Senghor moom moo yor kaddu mbootaay googu di AJDM bu Mbour 3. bëggoon a yee askanu Mbour 3. ci danger bi nga xam ni. mbalit mu ngi koy consulter surtout sachet en plastique parce que bu ma nee mbalit dangereux ci moom sax dina am ñoo xam dinañ ma mbalit am na recherche ndax boo xamee noo koy jariñoo xaalis recherche ci biir recherche ci biir ndax boo demoon ci dëkk tubaab bi mbalit mi dañ koy seet waa Sinma ñoom ñoo ñuy jàppale ci loolu ci ñaari semaine ñu jot ñaari ay bés ñu ne ñoom dinañ fi andi seen boutique boo xam ne lépp gox waa gox bi dajale rek ci wàllu sachet en plastique ñoom dinañ ko jënd donc ñoom boobu aussi gëm yenn gox yi ko wër jàpp nañ ne sax loolu moom mooy euh, li jiitu activité bi nga xam ne danañ ko amal ak benn ONG italienne mu tuddee LVIA ne fas yéeneen ubbil benn cantine boo xam ne lépp luy matière plastique euh, des na ko fay jaay foofu ne am na ONG bu koy jënd ne ubbi na centre si quartier Sulman 7 1997 ñoom waa LVIA centre boobu nag lépp luy mbuus ak wàllu plastique dañ koy jël soppalikoo def ko ay yeneen matériels yoo xam ne des na ko jëfandikoo Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar Ndaw ONG italien boobu ngay wax di LVIA ñoom dañoo fas yéene loolu sax dugal nañ ci seen loxo depuis yaata ngi nii jàppale askan wi ci xeex lépp lu jëm ci wàllu euh, mbuusu plastique yooyu ba tax na taxawal nañ ay gise yoo xam ne dañ ko fay jëndee Mouhamed Gueye moom mooy ki nga xam ne moo leen toggal ci Sénégal ñu déglu ko bon taxaw bi lu yomb pour ñun parce que buñ ko commencé léegi yàgg na parce que actuellement ñu ngi intervenir ci quartier yu bëri ni ñuy def ak yooyu rek leen jàppale indi leen matériel boo xam ne dina mën a faire fonctionner la boutique ay table chaise balance ak euh, matériel boo xam ne collecteur dinañ ko dinañ ko dinañ ko mën a utiliser pour collecter plastique parce que plastique bi ñu ramasse ci mbari mi la jóge matériel boobu bu amee après waa Silema yi ñëw fii di jënd régulièrement déchet plastique waaw li muy tëdd mooy que nit ñi soit ñoom ñu organiser wu ba nga xam ne plastique bu ñu liggéeyee seen kër ñu garder ko indi ko soit moo xam fan lañ koy mën a ramasser ñu indil ñu ko ñun toutes les façons bu fekkee ne plastique bi ñu indil ko jënd mi euh, euh, euh, ngi def liggéey yu yu am solo mais tey ndax yaakaar ngeen ne centre boobu rek war na mën a doy pour def triage mbalit ci Thiès yëpp. non centre boobu mënul doy parce que li Thiès di produire ci mbalitu plastique dafa bari bari ba nga xam ne actuellement amul actuellement capacité pour traiter déchets déchets plastiques yëpp moo tax xam naa bon Silema dina comme ni mu koy defee actuellement di commencer étendre activité am plus tard peut-être mën a ubbi beneen centre au niveau de Thiès mais centre Silema rek doyul pour Thiès. parce que Thiès actuellement mën nañu xayma dina produire quarante cinq tonnes de déchets plastiques par mois te Silema ak capacité actuelle maximum de c'est quinze tonnes par seen xam-xam màcc si si wàllu boobu mairie bi aussi liggéeyam la pour mu seetal dëkk bi mais la am na ay jafe-jafe ku nekk di tàllal sa loxo morom lan moo tax ba tey jii mënagu leen ak liggéeyal mairie bi. ne dafa nekk liggéey bu yaatu boo xam ne mairie la incombé maanaam loi bi mairie la wax pour mu gérer mbalit donc te acteurs yi dañoo bari non seulement y a les ONG y a les associations groupement de famille mais aussi y a des nga xam ne pour liggéey bi mën a dox yëpp mën a jaar ci benn yoon il faut que mairie regrouper ñooñu ñëpp teg mettre en place benn plan boo xam ñëpp ci la ñuy tënku tant que loolu amul ay jafe-jafe rek mooy parce que ku nekk da ngay intervenir d'autant plus que charge yi dañoo bari te décharge bi nga xam réglementaire amu fi non nekk ñu koy utiliser dafa sori soraay boo xam ne charrette yëpp duñ fa mën a dem donc charrette bu ñu ramassé seen mbalit ci espace yu libre yi wër Thiès rek dañ ko moo tax foo buntu Thiès yëpp taq na ay danger ci wér-gu-yaramu askan non seulement mën na indi ay danger parce que mbalit fu mu daje mën nañu wax ay microbe moo dina fa bëri te encore fii ci Thiès façon mbalit yëpp la ñuy dajale déchets hospitaliers yëpp na ngay gis yenn saa da ngay dañ ci mbalit yoo xam façon déchets yëpp nga fay même déchets hospitaliers dafay nekk donc loolu danger bu mag la pour ñuy liggéey ci décharge yi. Sud FM chez vous. à tout instant. benn waxtu jot ba tegal lu tollook fukki minute ak juróom-benn ñu wax ci wàllu politique ak élection législative yi nga xam ne ci lañ war a tànn député yi tax na am na naka tey benn lël boo xam ne euh, tàmbali nañ ko ci conseil régional bu ndakaaru loolu nag euh, jigéen ñi lañ ko jagleel rawatina ñi nga xam ne dañ leen tabb ci liste yi bu ko defee ñu xam dëgg-dëgg lan mooy fas yéene nekk seen liggéey buñ demee ci assemblée bi euh, loolu ñu ngi ci lëkkaloo ak ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu jigéen wàllu ndaw yi ak wàllu entrepreneuriat féminin Oumy Khayri Niang moom mi nga xam ne kenn la ci kilifa yi nekk ci ministère boobu waxtaan bi mu seq ak Marie Rosalie Ndiaye mu ngi jógee ci ministère de la femme bi nga xam ne Mariama Sarr moo ko jiitee te Mariama Sarr kàddu bi muy muy jiital mooy euh, liggéey bi dafa doon liggéey boo xam ne dafa wax parce que am na am na kuréel yoo xam ne ñu ngi ci yëngatu di jàppale jigéen ñi ndax loi parité bi ñu teg mu bañ a nekk loi boo xam ne dañ ko teg du du am njëriñ mais day nekk loi boo xam ne dañ koy jëmbal ci suñu jëf ak ci suñu doxalin mu jàpp nag ne atelier bi nga xam ne day def euh, renforcement de capacité mooy nga euh, fekk ñoo xam ne am nañ lu ñu xam nga dolli seen xam-xam gën a dëgëral seen seen xam-xam ci affaire leadership ci affaire njiit ak na muy jiite atelier bi dafa doon lu war loo xam ne dañ ko war a def parce que boo boo tegee benn loi boo bàyyee loi bi noonu du amal nit ñi ñi njëriñ loolu moo waral ñuy dooleel jigéen ñi pour que ñu mën a liggéey seen campagne ba mu baax ndax Sénégal góor a jigéen mën leen a wóoloon ndax sa àddina góor a jigéen ñoo fi nekk fu ñu mën a wóoloo jigéen a nga fa mën nañ ko koo koo wóolu kon jigéen ñi dañu gën a takku rek pour liggéey ndax wóolu boobu ñu leen def ñu mu nekk loo xam ne gën nañ koy yelloo ndangam sax yàgg nañ koy yelloo mais toujours dafa am ay xalaat yoo day tax ñu naan jigéen ñi xamuñu ne jigéen ñi mënuñu te dañuy fàtte ne kuréel yi ñu wax yu décision école la itam jàngukaay la am na góor ñoo xam ne bañ fay ñëw mënuñu dara mais jàng nañ fa loolu bare bare bare tey jii bu jigéen ñi demee assemblée dinañ fa indi seen xam-xam mais daañ fa jàngal góor ñi daan jàng ñoom ñoom te ñu jàng ci góor ñi àddina bi loolu lay dox Sénégal noonu la war doxe ba yegg ci développement. ba léegi ci wàllu xibaar ñu dem ba Waoundé nekk benn gox boo xam ne mi ngi nekk ci diwaanu maatam loolu mu soxal wàllu mairie ba ni muy doxee ñu gis ne daal euh, li ñuy wooyee euh, fonds de concours ak fonds de dotation mu leen nguur gi di jox li leen jox daa néew lool te ñoom ñu gëm ne tamit mbir mi dafa am par parparloo Ibrahima Camara. mu ngi toll si xolu Damga bi ci peggu dexu Sénégal bi biir département de Kanel Waoundé ba mu doonee commune ak léegi am na fukki at ak juróom waaye ndimbal bi nguuru PDS di jox commune yi ñu koy tuddee fonds de concours daf mel ni par par loo def see am mu déglu si Ousseynou Soumaré di secrétaire municipal commune bu Waoundé. fonds de concours 5 millions pour investissement xam nga loolu moom <laughs> duñu si mën def lu lu ñu bëgg daal bon dafay doy bon commune bu nga xam ne commune bu ndaw la bon amul population bu bëri. Hmm. mu am ay fonds de concours bu ñu ëppalee ñi am onze million ñi jox ñu trois millions bon ñi am trente millions fonds de dotation ñi am ay dix millions vingt millions. comme commune comme commune si mais par exemple. boobu xam naa am na yeneen commune commune yu bëri. Ah, lu waral loolu. bon je sais pas xëy na ñoom dañoo ànd ak parti au pouvoir foog naa favoritisme rek la. fii. moom secrétaire municipal bi am na yaakaar ne nguur gu bees bi dikk si dina si andi ay saafara. mais bon loolu yëpp xam naa loolu yëpp dañ quoi parce que ak nguur gu bees bi xam naa ñoom di tëral affaire yi ci yoon. Hmm. ñu ngi yaakaar vraiment. mbay mi doon luy teel comme waaw ndëb yi ba tax na béykat yi itam soxla nañu wàllu waaw ndëb bokk na si dëkk yu ëppay moodu moodu si région de Matam ba tax na seen loxo jógul mukk si lu suqali dëkk bi. waaw xam nga de comme ni nga ko waxee noonu la bon Waoundé euh, euh, dëkk la bu nga xam ne euh, bëri nañu loolu macha allah ci Europe surtout en France en Allemagne et un peu en Belgique aux États-Unis mais ñoom nag naka jekk bon depuis tout de tout temps vraiment ñoom dañuy participer ci développement dëkk bi ndax daan nañ jënd ay gaal gaal villageois di tabax ay ay ay mosquée ah bi fi nekk mm-hmm. ñoom ñoo ko tabax ak dispensaire bi ñoom ñoo tabax bureau de poste bi am na benn centre de formation professionnelle di mbir yi nekk Allemagne. ñoom ñoo ko tabax bon euh, ñu ñu laaj encore mm, terrain. bon pour ñuy tabax ñuy tabax euh, centre de santé. bon de façon ñun délibéré nañu terrain bi. wax dëgg nga kuréel bii di agence française de développement tabaxee pont Djilor bi ba léegi ay banque ak i société tàmbali nañu dikk fii si Waoundé maatam Ibrahima kamara Sud FM. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim li ñu koy dooree mi ngi soxal wàllu Égypte foofu ki nga xam ne moo fa nekkoon euh, njiiti réew mu di Hosni Moubarak nekk na koo xam ne naka tey euh, dinañ ko tëj giiru dundam gannaaw bi nga xamee ne tribunal bi euh, jël na dogal bu ni mel ci manifestation yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal nag at mel ñu génne ñu ko doon wooyee manifestation place Tahrir loolu nag dogal bu ni mel gis nañ ne tax na kii di procureur général bi nee daal moom Hosni Moubarak nañ ko yóbbu ci prison bi nga xam ne mooy prison doctorat nekk ca Caire xibaar bu nu mel ki ko xam ne moo di agence de presse d'État waaye tamit ki nga xam ne nekkoon na fa ministre de l'intérieur ay jamono mu di Habib Al Hadi moom tamit war nañ ko tëj giiru dundam fële ca Tunisie euh, élection général yi dinañ ko amal euh, maanaam euh, ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci atum 2013 loolu la njiitu gouvernement bi xamle loolu ci benn forum boo xam ne diggante Chine la ak arabe ñu jeexal ko nag barki démb fële nga xam ne moo di euh, ci gox boobu ñu gis ne kon boobu loolu mi ngi am gannaaw bi ñu taxawalee benn chart bu bees ak coow li nga xam ne tamit amoon na fa bañ dàqee seeni euh, président kon mbokk yi ci loolu ci lañuy ñuy ñëw ak yéen ci li nga xam ne dafa soxal euh, wàllu tàggat yaram. dañ ci ànd ak El Hadj Malick Ndiaye fële ci stade du président Léopold Sédar Senghor Hadj Malick mu ngi ñu ngi lay fay jomaay. waaw fi mu nekk nii Sénégal di am match bu am solo naka tey bu juróom-benn waxtu jotee lay doon digganteem ak euh, Libéria ci wàllu éliminatoire euh, coupe du monde 2014 douzième gaynde bi fas yéene taxaw tem ngir jàppale euh, ñi nga xam ne ñoo di gaynde yi ban ambiance fi mu nekk nii ci stade bi. xanaa rek ambiance bu veille de match bu am fii ci stade Léopold nit ñi nag di def ko ci guichet yi di jënd ay billets ngir rek mën a taaxirlu seetaan si match bi nga xam war am tey ji ci stade du président Senghor. lu jëm nag ci ni ñu jot a gis ci kii bëree gu rawatina nag côté euh, dëkku verte ak tamit couverte mbooloo mi tax ko bëri noonu comme match bi 18 heures la xam naa gars yi dañuy xaar rek ba ci kanam ñëw nag maanaam mën a euh, seetaan si match bi leen loo xam tam lañ ko jàpp comme ambiance euh, fii nag mooy ci comité d'organisation bi nga xam ñu ngi joxe ay badge ku ci nekk ñu may wax yow taxawal lii lii ngay def lii bu def lii lii li nga war a def donc loolu mooy ambiance bi nga xam ne nag am na fii ci stade du président Senghor ñu waxtaan sax ci euh, journal 12 heures bi ak ki nga xamante Seydina Issa Laye Diop mais nag muy wax ne ñoom tey dañ bëgg a def un cachet populaire à cet événement important bu am solo parce que tamit moom moo nekk match rachat bi nga xam ne tey jii war nañ ko jouer seen diggante ak Libéria ginnaaw bu ñu amee nag jël ba fële nga xam moom moo nekk nag ca bataaj atum 2012. jaar loolu la El Hadj Malick Ndiaye jërëjëf ñu ngi lay gërëm euh, di la euh, sant ci sa euh, jokko loolu moom mooy li nga xam ne moo xew kon jamono yi ci stade du président Léopold Sédar Senghor match bi ñu fàttali leen na bu juróom-benn waxtu jotee lay doon da ngeen ko mën a déglu tamit en direct ci Sud FM ak suñu équipe bi nga xam ne jamono yi mu ngi foofu ci biir stade bi ñu fàttali leen ne ci wàllu éliminatoire coupe du monde 2014 la. Sud FM ganu bés bi euh, ganu bés bi ci fànn boobu sax lay wax euh, mu nekkoon fi ay jamono capitaine des Lions euh, nekk ki nga xam ne tamit nekkoon na fi capitaine Jeanne bu Ndakaaru Roger Mendy la tudd seq na waxtaan ak El Hadj Malick Ndiaye. Roger yow ancien jours nga yàgg ci football bi lool nak nga jàngate Sénégal Libéria. Sénégal Libéria dafa war a nekk match boo xam ne dañ ko war a préparer ci. ci série bu bëri respecter adversaire bi euh, c'est pas parce que gagné nañu Maroc que Libéria léegi dëkk bu tuuti moo amatul ci football Maroc beneen affaire la Libéria beneen la dañ ko war a jël très au sérieux liggéey ak liggéey liggéey yu nga xam ne xam équipe bi nu muy fubalee ñun ñu xam nu nu war a taxawee daal di ñëw commencé aborder équipe bi respecté ko déjà parce que nit booy fubal ak moom wala ngay bëre da nga koy respecté jox ko cër boo ko joxee cër commencé di liggéey liggéey bi nga am parce que ñun suñu fubalee war nañ ci génnee lu bari waaye xeeb bi nag moo mooy nga xam ni booy xeeb nag ci ngay am ay problème yu dul jeex du xaaj parce que équipe bu ndaw amatul parce que léegi ñëppay fubal équipe commissariat bi dafay football amul ku dul football donc ñun ñoo war a football tere leen football loolu rek mooy football. naka la gaynde war a duggee ci match bi Roger. nii ñu war a dugg ci match bi mooy dañu war a dugg ci match bi xam ne tey dañu war a def lépp. gagné match bi parce que beneen match bi nga xam ne moom la ñu war a fubal Libéria après dafay metti trop donc boo ko boo ko yóbbalee sa dëkk boo demee fee lu mu metti metti di nga ci mën a génn loolu kete préparation boobu psychologie boobu moom la xale yi war a duggee ci biir terrain bi xam nañ ni war na mën a gagné waaye duñ ko yàkkamti lépp dañ koy togg bu ñoree rek ñu yekk. coach ci lan la war a accès discours am discours bi lépp daf ko war a accès ci euh, loo xam ni du ju jëm ci tolof tolof yi nga xam ni euh, daloon nañu euh, Coupe d'Afrique bi passé daf ko war a jël ci équipe bi muy doog a tàmbalee bi muy nekk entraîneur dem ba Maroc foo xam ne Sénégal mosu fa gañe mu gagné fa foofu la war a tàmbalee ñëw daal di ne match bi ñu defoon contre Maroc sérieux bi ñu ci dugaloon lépp liñ ci bëddaloon noonu ko jëm a andiwaat dolliwaat ci lu bari parce que bii suñu biir dëkk la ñuy fubal te fubal ak sa dëkk neexut gis nañ ko fi match yi dul jeex du xaaj dafa neexul gis nañ ko fi contre Cameroun Cameroun ne sonoon nañu fi trop ba muy des ay quelques minutes de la fin quelques secondes sax mën nañ ko wax ci lañ fi dugal bi bi kër public yeewu donc nanu placé waat xale yi ci match bi nga xam ne tey football sa dëkk dafa yombut waaye buñ ci jéemee def lépp dinañ ci génn bu jàmm ak sax. mais gis nañ tamit ne ci contexte bu doy waar la ndax mun nekk opération de rachat kër gaynde ak public bi mooy comme ni ma ko waxee woon ci tubaab rek gis nga public bi ak kiy jubóo mooy que euh, public bi dafa am euh, rôle bi muy def mooy supporter joueurs yi am le rôle bu ñuy def football man.

na yoo xam ne du dul dox waaye tey déception bi nga am tey boo ñëwee ba ci biir stade bi xale yi defuñu dara nga yuuxu leen yaa ngi jox équipe adverse bi doole. tey ngaa toog sa kër boog bañ a ñëw stade stade boo fi ñëwee da ngay mën a supporter ñun ay spectateur lañu seetaan lan fi nekkee waaye duñu yuuxu pour dimbali xale yi loolu mooy suñu problème léegi ñun fu mu bëggee dem xale yi dañ leen di jàppale parce que dañuy xool ci équipe bu baataa boobu ñeente fi ne barewuñu ñi ci des yëpp ay xale yu ndaw lañu kon xale yu yi nañ leen jox tamit seen suur seen dimbali leen jàppale leen tàccu leen encouragé leen ñu jéem a gagné match bi du yu bëri comme ça bu ñu demee Libéria duñ fa am problème. ñu bëri dañu wax tamit ne équipe bi joué contre Maroc waruñ ko waruñ ko mën a bàyyi noonu ba ba la ñuy ci changement bu ndaw ndax nga gis-gis boobu euh, euh, football la bokk bu ñu nee équipe bi football rek war a ñu ko dindi. d'accord naa ci waaye tamit il faut ñu xam ni léeg-léeg équipe di nga ko dindi parce que ñëlee léeg-léeg nga gis ki quatre wala cinq jours yoo xam ni dañu mën a dribbler mën a téye ballon bi mën di ko joxe ak fekkee yow danga nga ñoo xam ne mënuñu récupérer bal bu keroogee da ngay am problème ci équipe bi nga xam ne gagné woon na léegi di nga fi dugalaat ñeneen ñi nga xam ne dañu mën a marqué kooku mooy andi yenn changement yi parce que bu fekkee équipe bu buy gagné rek mooy dem rek day métti trop parce que ñee buñ la fa andilee ñoo xam ni tey buñ la fa andilee ñi nga xam ne dañuy daaji rek. kan nga fay dugal doo fa dugal yow tamit ñi nga xam ne dañuy dajji rek da fay dugal ñi nga xam ne mën nañu éliminer di shoot moo tax ñu ne la ça dépend tout le temps équipe bële li ma andil ak li nga xam ci ñoom noonu nga koy préparer di ko football. ndax Couture am du am problème boobu parce que. mais problème boobu yëpp am na ko bi muy ne joueur. mais joueur entraîneur du benn Roger benn mais am na ko sax bi muy nekk ci CHAN bi. parce que am na faale xam nga bul faale bu fekkee da ngay sóor bu yóbboo nga bañ a entraîner parce que da ngay sóor ma équipe bi dana war a métti sama premier match la yow yaa ngi def pression sa bopp pression boobu ngay def sa bopp moom nga koy jox joueurs yi joueurs yi bu ñu duggee si biir match bi pression boobu la ñuy àndal ba dara du am donc xam na bu baax lu ko fay wut football nag xam na luy pression dana ci génn bu soobee yàlla parce que ni ma ko entamé contre Maroc lay entamé fii mu jeex tàkk. Roger Mendy ñu sant la gërëm baax. waaw di gërëm yéen ñëpp merci beaucoup. la presse, la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Rewmi Quotidien, Le Soleil.